télévision Futur Média mbokk yi nuyu nañ leen rafetlu seen ànd ak ñun fas ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës di ndéem si yàlla Abdoul Aziz Mbaye ministre de la culture ba woon directeur de cabinet président de la république ba woon génn àdduna jébbal nañu ko boromam naka tey ji rob bi ñu ko doon defal bari woon ay kàddu yu seede yu jugee ci euh, fu nekk jëm ci moom Abdoul Aziz Mbaye des na leen ko dégtal ci xibaaru timis yi. ginnaaw ay jàmm université Gaston Berger ba ca Ndar coow ak ñool ñool ya fa amoon jëmoon ci étudiants yuy lekk te dañu fay taxoon kilifa yi yëkkati seen kàddu ne ci tëj pension ba ca la ñu jëm loole kon jàmm dellu si waat na ana lan moo ko indi étudiants yeeg ni ñu gisee bëccëgu euh, journée sans ticket boobee euh, kii di Ousseynou Diop def na fa reportage daan ci ànd ak yéen ci xibaaru di euh, xibaaru kon timis yi waxtaane woppi cancer ak lorange yi nga xam ne mi ngi koy jur ci Sénégal lu toll ci fukki junni ka ak benn US am nemmeeku nañu ko ci réew mi nemmeeku nañ ci lu toll ci juróom-ñetti doomi aadama juróom-ñetti junni doomi aadama yoo xamante ne ji kon faatu nañu ci cancer bi di kaddu yu bàyyee ko ci docteur Fatma Guinoune mi nga xam ne moo di njiital LISCA Ligue sénégalaise contre le cancer ñu yëngu ci wàllu politique rafetlu dogal bi ko ci njiit réew Macky Sall jëm ci tànn professeur Babacar Comte ngir mu wuutu général Niang ci bopp euh, comité dialogue politique euh, bi nga xam ne moo ñeel mbiri dialogue national Cheikh Sarr bu plénipotentiaire pôle majorité ak Saliou Sarr bokk ci kujje politique yi ñoom ñëpp ñu àndandoo bokk genn kàddu mooy nit ki war ci fa war waykat bii di Kumba Gawla Seck nee na dafay bàyyi way bàyyi way ba jëmmi jamono la tax moo di ay jafe-jafe yu mu amee ci baatam mu laaj am paj moo xamante ne ji noppalu diir da caa war looloo tax kon mu tegandi way fi suuf ab vidéo la def manager am yónnee ko wa APS ca noonee lañu jotee ci boobile xibaar mbokk yi xibaar yi ci télévision Futur Média ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média Abdoul Aziz mbay ministre de la culture ba woon génn àdduna jébbal nañu ko boromam tey jii. Euh, ay seede bàyyeekoo fu nekk jëm ci moom dem si yàlla Abdoul Aziz Mbaye ne woon ni directeur de cabinet bu président de la république Macky Sall seede si benn la yëcc yëpp moo di Sénégal ñàkk na kook yàgg naa taxaw ak di xeexal culture réewum Sénégal ñu ànd ceeg ab bi fay Youssou ciy leeral. Abdou Aziz Mbaye dem bàyyi ca ginnaawam wéet ak tiis caada ak réew mi di jooy joorinam bi. nekkoon na koo xam ne it gëstukat bu mag la woon nekk koo xam ne dafa jàng physique def relation internationale wàññeekuwaat nag di nekk ci caada ak di liggéey. doonoon daal macha allah ku yàlla mayoon xam-xam waaye noonu la wàcce woon boppam it mënoon ànd ak doomu aadama yëpp euh, jóg bàyyee ko fa mu ne woon ñëw liggéeyal réewam. mu doonoon ko xarañ lool réew mi ñàkk na ko jëwrin gi lépp la nga xamante ne ñeeloon na wàllum patrimoine culturel mu réew mi dajale woon na ko ca kaw ba mu nekkee ministre bi ñu dénk wàllum caada. mi nga xam ne bokkoon nañu eh, ay jotaayu liggéey yu bare bare bare daanaka ci wàllu politique 2012 eh, balaa dara di xew ak 2019. Eh, mu doono nag surtout borom xam-xam bu mag a mag a mag xëy na nit ñi xamewuñ ko woon. kon tey jii bu demee dañu koy réew mi moo ñàkk réew moo ñàkk ndax ku liggéeyal réewum ci biti xam nga boo demee ba nekk ci Fonds de Nations Unies. di fa liggéey c'est parce que am nga taxawaay bu mag. waraloon na itam lii di grande tournée du patrimoine moo ko organisé woon te xeexam bokkoon na ci itam gën a jëmmal dooleeg intellectuel yi. def na liggéey bu ràññeeku ci Union européenne euh, ci wàllu woowu ñu ngi ko ci sant wante biñ ko dénkee itam ministère de la culture liggéey na fi liggéey boo xam ni ci man li ma jot a dégg ndax mosoon naa fa nekk def na fa jaloo jaloore Euh, li ko ñoroon moo doon jóg wër Sénégal fépp cosaan ak aada nekk mu téye ko euh, suqali ko wane ko ba àggoon na ci bokk ci ministre yi yi nga xam ne bi ñu doon nommer nit ñi euh, di leen jox ay cër daawul xool lan nga bokk ak moom wala ndax xam na la. professeur la woon en électronique kenn dootu ko fàtte ci taarixu Sénégal Abdou Aziz Mbaye bokk tamit ci ñu samp APR waral na tey xarit ak i jegeñaale waajur ñoom ñëpp ñëw nañ gunge ko. delloo ko njukkat gannaaw ba mu dëddoo tey mu ngi noppaloo fii ci sëg yu yoof moom abdul asis mbay ci juróom-benn fukki ak juróom-benn ci la génn àdduna gannaaw wopp ju tëraloon ñu seetlu ne nag yàgg naa dëkkee jéego ngir lu yéegal Sénégal kawel ko ci wàllu aada ak cosaan loole sax taxoon kon ñu jàppe woon ko ambassadeur ci woowile wàll moom Abdoul Aziz mbay moo doonoon kenn Mame Birame Diouf la ci yàndal ñu xamee woon ko ci ab diplomate bu xam liggéeyam xareñ lool moom Abdou Aziz Mbaye demam génn àdduna kon doon loo xam ne ni tiis la ci Sénégal waaye ci àdduna si ak fépp fu mu jot a jaar moom Abdou Aziz Mbaye di fàttali ni jot naa doon directeur de cabinet bu président Macky Sall waaye gannaaw gi ñu tabb ko mu doon ministre la culture ci gouvernement bu Abdoul Mbaye ci atum 2012 mu doon nag subsaharien gu njëkk nga xam ni kon jot naa dugg ci lu yeel section mathématique ak physique de base bu centre national de recherche scientifique ci atum 1983 moom nag moo lancé sax li nga xam mooy biennale des sciences de Dakar ci atum 1991 waaye mu jot a doon président fondation Aziz Mbaye jaar-jaaram doon loo xam ne dañ koy fàttaliku ndax lépp loo xam ne ni mënoon na ko dégg la ko loon def lépp ngir sénégalais yi gis seen bopp ci lu jëm ci ay politique yu ñu doon tëral professeur électronique bi spécialiste marketing. jot naa bokk te ci ñi taxawal APR mu nekkoon sax secretaire national yor lépp lu jëm ci image waaye ci système d'information parti boobu moom Abdou Aziz Mbaye doonoon na ku doon taxaw lépp ngir jàmm ak dal am ci àdduna si waaye doon taxawal te it di défendre Afrique mu doon ab continent goo xam ni kat koom-koom dina dox waaye dal ak jàmm doon lu fi sax. Abdou Aziz Mbaye ma nga ñu denc ci sa gi jullit ya nekk ca Yoff. waxtaanee coronavirus bi ak tolluwaay gi fukki doomi yaadam ak benn ñàkk nañu ci seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn lu toll ci ñetti ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomi yaadam ak corona nañu ci réew mi lim boobee na mu tëddee juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ay cas contact lañu ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak di ay cas communautaire ñi wopp ji sonal ba ñu nekk Sowétas maanaam cas grave yi waa Kër Docteur nee nañu ñu ngi toll ci ñeent fukk ak ñeent. diwaanu Tambacounda ak kàddu leeral yu bàyyi ko ci responsable surveillance épidémiologie gi nga xam ne moom lañu ñu dénk mbiri programme élargi de vaccination maanaam di wër di ñàkkee ngir mën a fàggu ci yenn jàngoro yi la mu xamle moo di nañu ko bëggee ma ngay doxee noone mu di yaay yi di doom yi ku ca nekk daal ñàkk bi ci war ñoo ngi koy jëf jëmm ci yow la gën a tax nag loolee mën a jàppandi moo di agent ak relais communautaire yi dañoo jàpp ci liggéey ba bu baax a baax Moussa Omar Gueye Yamadou Diédhiou paru fièvre jaune ñeen ñi naan ko pays li mu tàmbaliwaat di jébbi ci diwaanu Tambacounda tax nañu samp laaj di xool ndax ñi nga xam ni ñoom ñooy yaay yi ñu ngi respecté lépp lu jëm ci wàllu couverture vaccinale ñeel tout tànk yi. waaw ah, ñu ngi koy respecté de parce que gis naa leen ñuy dugg fii daal kon xam nga kon ñu ngi koy respecté. baax na de ci maladie sew yeeg yëpp yëpp ak yi ñëw yooyu yal nañu si yàlla musal waaw te damay gis ñeneen ñëw rendez-vous fii laay jaayee ñu dellusiwaat beneen rendez-vous. waaw kon respecté ko daal nañuy bañ a ragal rek xam nga ñu bëri suñu déggee feebar ak di naan buñ la pikiire da ngay dee ak da ngay kii ñu bëri ñu ngi ragal. ki ñu denk lépp lu jëm ci wàllu programme élargi de vaccination ci district sanitaire bu Tambacounda di tontu waaw. ñun nag wax dëgg yàlla fii district sanitaire Tambacounda amuñu problème ñàkk ci wàllu xale yi yaay yi ñu ngi andi xale yi bu baax parce que depuis d'ici depuis cinq ans voire même plus en tout cas suñu couverture yaa ngi baax même le niveau central a valider les données donc ñun amuñu benn jafe-jafe ci vaccination gis nañu dig si Tamba est performant en tout cas dans le cadre du PEV. ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu communication di waxtaan ak askan wi nee na dañu am daal ay agent communautaires yoo xam ne ñoo leen ciy jàppale. parce que boo xoolee district bi moom ci boppam euh, dafa am ay poste yu bëri yoo xam ne euh, ñoom ñoo ko ñoom ñoo ñoo ci bokk ba pare boole ko ak centre de santé bi léegi boo demee ci poste santé bu nekk poste santé bu nekk am na ci ay euh, lu ñuy wax ay acteurs communautaires yoo xam ne. ñoom ñooy renforcer la communication boo xam ne prestataire ñoom ñoo koy def ci ci ci kii donc relais yi bajjan gox yi ñoom ñoo ñu dimbale n'est-ce pas pour communiquer maanaam pour joxe bépp xibaar boo xam ne mu ngi jëm ci euh, information nga xam ne donc pour population bi xam njëriñu vaccination. fas yéene daal fii lekk ñaari ay bés yu jëm daal di nag tàmbali benn campagne boo xam ne dañ ko fas yéene ping askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ci diwaanu Tambacounda diwaanu Kédougou. jàngoro jeneen juy defi loraange ci réew mi moo di woppi cancer ndax nemmeeku nañu fukki junni doom yi adama ak benn yooyu amee nañu ko fi nemmeeku ci ñoom it juróom-ñetti junni yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan kàddu yi leeral yu bàyyi ko ci docteur Fatma Guénoun mooy njiital LISCA mu teg ci it ne jamono ji nga xam ne coronavirus bi tax na kenn amatul jàmm dafa feeñ bu baax a baax ci ñi amee woppi cancer rawatina ci taxaw gi ay kàddu la yooyu mi ngi ko dénk Chérif euh, Dia tey ji moo ne woon ganu euh, info du matin ci fukki ak benn junni nouveau ak lu topp ci cancer ci Sénégal euh, te ñu ngi am juróom-ñetti junni euh, décès donc euh, loolu situation bi bari na gis nañ ne faagaagal bi bari na te cancer yi ñuy gis mooy cancer yu jigéen yi ñoo raw gàddu muy cancer buntu buntu tunjurukaay bi cancer ween ñetteeli cancer bi gën a bare ci Sénégal muy cancer u foie ñeenteel bi di cancer u prostate bi nga xam ne ne góor dong lay dal boobu lay ñu ngi ci am 880 euh, nouveau cas te lu ëpp juróomi téeméer dinañu faatu euh, ci ñeent juróomeeli cancer bi nag mooy cancer u estomac ñu doté Euh, loolu maa ngi koy ñaan président de la république ministre de la santé pour nga xam ne ne euh, district sanitaire u Sénégal yëpp ñu def fa benn appareil bi nga xam ne ne dina faj. Euh, lëgët bi nga xam ne ne moom mooy joxe cancer lu ñuy wax lésion précancéreuse xam nga mbas bi euh, surtout euh, ci 2020 bi metti woon na trop bi ñu tëjee dox ci diggante région yi diggante ville yi ñi nga xamoon ne dañu demoon seen fi ñu dëkk bëggoon dellu si Dakar pour àggali seen faj loolu metti woon na parce que fokk nga demander autorisation fokk nga fay transport bu cher donc nga xam ne ne seen feebar dafa wunni ñu ci bari faatu nañu. jafe-jafe yowoon ci université Gaston Berger bu Ndar di étudiant yoo xamante ne ji dañu doon lekk te du ñu fay mu di ngénte tubaab taxoon kilifa yi diwaan booy daara ja kon ne mënatuñu ko wéyee bu continuer dañuy tëj l'école ba mu juróon fitna juróon i jàppante sax seen digg ak takkader yi naka démb jafe-jafe yooyu nag jeex na euh, étudiants yi ak nañu ko dundee dañ ci yànd ak Ousseynou Diop. benn fan ginnaaw ba jafe-jafe amoon ci diggante force de l'ordre yi ak étudiants yi fii ci université Gaston Berger bu Ndar léegi nag jàmm dellusiwaat na restaurant yi ubbi nañ ko. jafe-jafe bu ñu mel nag li taxoon mu am bokk na ci étudiants yi ba ñu décrété ñaari fan yoo xamante ni dañuy lekk te duñ ko fay duppe ko ngéntal tubaab waa kurus ñoom ni loolee du ci am ba jafe-jafe amoon léegi nag étudiants yi war nañu mën a dellusiwaat ci restaurant yi ndaxte ubbiwaat nañ ko ñu ci bare ci ñoom nag di joxe seeni xalaat ci mbir mi. ah oui Restez 24 heures vraiment waaw lu ñu gis mooy restaurant yi moom ubbiwaat nañ ko loolee euh, nañ ci am mbégte ndaxte jafe-jafe bu mag la woon étudiants yi kenn mënu woon am sax loo lekk loolu nag dañu jàpp ne ñun rafetul woon. ça n'a pas été facile pour nous. métti woon na nag nga xam ñu ngi voilà toog trois mois amoo bourse ci ay problème ndaw yi loo xamante ni même pas ay quelques millions mën na ko mën na ko mën na ko mën na koo faj. bu fekkee ni lu jëm ci wàllu jeunesse sans ticket yi ñu daal di koy duppee ñu ci am daf ci wuute. bien fait bon. moom boo ko gisee rek jàppal ni étudiant bi fa mu nekk dafa nekk ci naqar euh, moo fa sës waaye nag ñun li ñu gis mooy euh, lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund fii moo waral ñu amaloon ko. c'est bon j'essaye gudd na moom gudd na franchement gudd na mais vrai que nag bon nekkul sax moo a étudiant yi nekkul sax moo a étudiant yi parce que étudiant yi bu nekk j'essaye euh, bu dee dafa dem durer ay ay lu un mois dafa dafa trop. en rajo en yi parce que des boo duggee réseau bi da ngay du am. léegi nag jàmm desiwaat na ci université Gaston Berger bu Ndar journée sans ticket yi ñaari fan la ñu xaatimoon mu jeex tey jii waaye nag li tax ñu ubbiwaat restaurant yi mooy benn mécène moo daal di fay ticket yi nga xamante ni moo jëm ci bisu tey bile. yéene ji bàyyi ko ci njiit réew mi Macky Sall mu séewal ko démb ci ndajem conseil des ministres jëm ci di sàkku ci eh, télé yi ak rajo yi seeni programme ñu gën koo dooleel di ci gën a waxtaane lool dana ñeel kilifteefu état bi ñeelit li nga xamante ne ji moom moo di wàllu intere réew mi ak lu ci mel ni it wàllu jàmm ak yu ni mel loole ma du Bal rafetlu na ko bu baax a baax moom mi fi newoon ni jamono directeur bu rajo télévision Sénégal eh, mi ngi koy rafetlu jàpp na it nag li tax jamono ji mbir mi xaw a contenu xaw a woyof Ibrahima Lissa Faye bokk ci kilifa yi jiite doxalinu presse en ligne bi fii moom la mu cee ñaaw rek mooy lu tax ñoom boole wuñ ci presse bi ne ñoom it ñu war a mën a joxe contenu bu am solo ci seen la ñu Abdoulaye Diop Pape Sangone Mbaye président de la république Macky Sall mi ngi ñaan rajo yi ak tele yi ñuy génnee loo xam ni dina amal njariñ dëkk bi woote boobu mu def sax kii nga xam ni xam-xamam dafa màcc ci audiovisuel mi ngi koy rafetlu. xool xool ba li nga xam ne war nañ ko def ak waruñu ko def télévision mooy moo nekk ca centre ba rajo yi tegu ci parce que mënuloo wax lu la neex mënoo def lu la neex parce que loo def war naa nekk loo xam ne day gën a suude nation bi day tax nit ñi gën a ànd day tax nit ñi gën a sawar day tax nit ñi gën a liggéey day tax nit ñi gën a respecté seen bopp day tax nit ñi gën a respecté seen réew day tax nit ñi gën a respecté seen aada respecté seen état. bokk na ci bëgg-bëgg président bi ñu saytu luy génne ci réseaux sociaux yi association bi jiite professionnel yi nekk ci presse en ligne ñoom ñu jàpp ni nguur gi moo mën a fexe ba ñu jëfe luwaay yi fi nekk réew yi àddina yépp bala ñuy am ñaareel wala ñetteel wala ñeenteelu télévision la ñuy njëkk a tabax mooy li ñuy tudde cahier de charge ni télévision bu ñëw nii nga war a doxe lii nga war a am ci programme lii nga war a ni nga ko war a dox dox tërale ba pare nag soor a def li ñuy tuddee appel d'offre ca njalbeen nga defe wuñ ko noonu defewuñ ko noonu parce que njiit yi fi nekkoon ca booba waxoon nañ leen ni ñuy joxale de mais ñu ni daal nañu bàyyi ñoom ñu joxel seen bopp. dajji bi nga xam ne rajo yi ak télé yi mi ngi am ginnaaw bañ libéré fréquence yi. état moo yor doole moom lañ jox sañ-sañ maanaam pour mu doxal li nga xam ci ne mooy loi yi et li ci am ba am mooy que ne maanaam dafa war a euh, tas. Euh, euh, li nga xam ci ne moom la ñuy moom moom la tënk ci téere yi pour citoyens yi xam ka ñu xam maanaam fi seen limite yi yem ñu xam euh, li nga xam ne war nañ ko mën a def ak li nga xam ne loi bi mayu leen ka ba nga xam ne bu ñu ko jalgatee loi bi mën a dal seen kaw. moom a du baal nag mi ngi métti lu programme yu bëri yi nga xam ne dañ koy def ci ay mbiru caaxaan moom nag mi ngi yaakaar ci CNRA. mu teg kay charge boo xam ni dina wax yan xeetu émission lañu war a teg nguur gi nag li ko gën a jaaxal jamono jii mooy nan lay contrôler presse en ligne bi professeur Babacar Kanté moom la njiit réew mi Macky la tànn gannaaw ak déggoo ko waxtaan goog nee na ñu def na ko digganteem ak ñi seq yëf yi moom la ñu tànn ngir mu wutu sénéral mamadu Niang ci bopp commission politique ngi bi jëm ci wàllu dialogue national loolee nag ñu bari ci ñu ko seq di ko rafetlu ku ci mel ne Cheikh Sarr bokk ci plénipotentiaire bu euh, ñi fare ci majorité bi naka noonu it Saliou Sarr fare ci ku jëkk politique gi jàpp nañ ne daal tànneef boobee tànneef bu jaadu la Alassane Ba Mohamed Dieng. tànneef wi mu mel ni ñëpp ci ànd professeur Babacar Kanté wuutu ndem si yàlla moom du Niang ci bopp commission politique bu dialogue national. moom bokk na ci commission cellulaire bi nga xam ne ñoom ñooy diriger liggéeyu commission politique bu dialogue national. muy ki nga xam ne aussi am na xam-xamam parce que professeur Kanté ñëpp xam nañu xarañteem ci wàllu droit ci wàllu constitution parce que yàlla def na ne bokkoon na fi onel waaye yàlla def na aussi nekkoon na fi même membre conseil constitutionnel. choix bu baax la parce que bokkoon nañ si pôle yi nga xam ne nii partie prenante yi nga xam ne proposé woon nañu euh, donc professeur Kanté pour mu bokk si personnalité indépendante yi war euh, donc diriger euh, dialogue bi. mu mel ni dañuy wéyal liggéey bi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko ñaar fukki poñ ak juróom jot nañ see déggoo ci ñaar fukki poñ ak juróom ñaar yi ñi nga xam ne nag jot nañ daje ñoom bokk ci ñaari pôle yi majorité ak opposition jàpp ni mën nañu jeexal liggéey bi fii ay weer kese. gëm naa ne war naa am délai yu ñu mën a wàññi mooy yi nga xam ne nag dafa dépendre ci ñun li dépendre ci ñun mooy ñun ñoo wax téeméeri fan ak ñaar fukk ñàkkul ñu am luñ ci mën a wàññi ay fan. bu dee loolu day dépendre nag ci liggéey bi ni ñu koy defee ci terrain bi waaye aussi bu ñu gisee ñun classe politique euh, commission politique bara waxtaan war nañu mën a xool ndax waxtaan boobu euh, mun nañ ko def mu baax ba pare gaaw. dañu wax ne audit bi bu tàmbale woon février bi ndax am na nañu maintenant euh, jël nañu experts yi lu mu gudd gudd ñeenti weer la donc leneen li nga xam ne ni moo des si pour mën def élection yi jur si juróom benn weer mën nañu koo def. donc muy révision exceptionnelle bi muy compte période contentieuse bi mooy liggéey bi ministère de l'intérieur war def déclaration de candidature yi yooyu yëpp xam na ni mën naa nekk. ñu yokk si ne gëm nañ ni mën nañu amal li nga xamante ni moom mooy jongante gox yeeg goxaat yi ci njeexteelu atub 2021 bi lépp rek mu ngi aju ci bëgg ko ak engagement bi nga xamante ni acteur yëpp dañ ko wone. xale yi ñuy yekkataan maanaam viol gi ñuy def mineur yi tax na waajur yu bari jamono ji seen fit dalatul li ñu bëgg moo di loi bi nga xam ne dafay tere lii di viole di yàkkataan doomu aadama rawatina gone daan ya ca war ñu gën koo jëfe bu ko defee dana tax saay-saay si mën a teggi seen tànk reportage Maimouna Ndiaye kii mooy Marguerite Thiam nekkoon na fi taskatu xibaar bu mag ca rajo Sénégal international tey jii mu nekk retraite wante day am lu ko metti loolu bu déggee nii dañoo yegg ci kaw tuut tànk. nit ñi seetatuñu dara dañoo mel ne na ma yàlla baal ci ñi ma ko war a wax dañuy dund dundinu mala. doom boo ko yoree muy xale bu ndaw jàngiwul école teg ko ci loxo yi wóor boo gëstoo cinq minutes gisoo ko war ngaa seet ba xam fan la ne waaye dafa foy dem leen foy ca mbedd ma dem leen yooyu yarul xaleel xaleel danga koy topp di ko xool di ko tàggat di ko seet di xool fu muy dugg di xool ku muy àndal. borom kër bi moom dafa gis ni am na lu bari loo xam ni dañ ko ciy nëbb. li nëbb si kër yi moo ëpp li feeñ ndax léeg-léeg sa ndijaay sa rax rax bu góor egg sa doom soo ne yaay bàjjen yi ñu ne bàyyi mu sedd affaire de famille la. yi nëbbu si biir kër yi moo ëpp te yi des fois sax yow mii dëkk si koñ bi yi ngay yëg di ko dégg doo ko sax mun wax sa yoon ne da sama yoon newu ci dëkk ma si kër gi lan nga ngaan sama yoon ci ñëpp a tiit ñëpp a jaaxle wóor na yàlla ngay tëdd ba guddi sax jug di xoolaan ndax xam nga kër léegi dafa xat saafara bi fi mu toll nii soxna yi nee nañu mooywul li yoon wax ñu def ko ak nam ko santaane nga am sa doom yare ko fi nga ko war a yare mu dem nga yaakaar si moom lépp benn waaye jóge fële violé sa sët wala mu violé sa doom bu ëllëgee ñu jàpp ko du am ñaari fan sax ñu bàyyi ko mu génn looloo ma ci gën a metti man yaayam xolam tàng papaam xolam tàng ñu xëy suba gis ko si mbedd mi muy taxawaalu képp ko violé ti xale bu ndaw boo xam ne xàmmeewul ndeyjooram ak càmmoñam xàmmeegul lu baax ak lu bon nañ la teg daan yu metti nañ la teg daan yu diis yoo xam ne boo fi jógee di nga xam ne lii du lu ñu war a def te jamono ji ñu toll ci aller bi dafa bari lool. moo ne de fii ci Sénégal loi bi nga xam ni dafay criminaliser viol ak pédophilie promulgué nañ ko fii ba noppi wante seetlu bi mooy day am lu ci bari yéex yéex ci application bi ci ñu doxal ko ca na mu waree. ba Ndiaye dëkk la bu nekk ca Tiwaawoon fukki tund ak juróom ya fa nekk di village askan wa ñoo jóg jóg di wane seenu ànd ci li ñu bëgg a def mu di jël forage ba foofee dénk ko Aquatec tax nee nañu Aquatec munu ko euh, doxal ndax euh, ay partenaire ñoo ko fa def mu di lool ñaawlu nañu ko naka noonu it chef de village ya ca boobu li diwaan mu di ca Kër Màlle amal nañu ak manifester ngir ñoom it di wane seen ñàkk ànd ci yëf yi Cheikh Anta ciy leeral duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg suñu forage bi nga xamante ne ay partenaire ñoo ñu ko indil ci dëkk bii di Taïba Ndiaye duñu nangu di ko teg ci yeneen loxo fukki dëkk ak juróom yi wër ba Ndiaye de yuuxu nañu ko fii ci dëkk bi di Kër Màlle yonent bi dafa waxoon ne annaasu sawaasiyatun fii salaas nit ñi ñoo yam ci ñett ñoo ci bokk yam ay droit mooy ndox ak courant akub liggéeyukaay ndox mi nag yàlla andil nañ ko ci te ndox di xéwal ci askan wépp mu nekk fii ci dëkk bi bu jëkkaan mag daana jóg fii tabaarakallaahu soxnaam nekk ca teen ba wala mu rootaane faneen mu koy xaar pour heure julli mu mën a jàpp wala mu mën a mën a set mën a laab dem ca jàkka ja ca daawu gis am ndox ca xale yi nga xamante ñoom lañ ko dénk kenn gënu leen a wóor kan li ñu bëgg mooy teg nan ñu tegal suñu yëf fii. Serigne Am Ndiaye mi nga xamante ne nag moom moo yor kàddu ndaw ñi ne nag forage bi duñu ko bàyyee noonu ndaxte dañ cee sonnoon lool. sunu forage ñu ngi ko booba léegi juróom-ñaari at ñu ngi ko amee woon ci jàpp na lu Ablaye Diop Ablaye Diop euh, ancien ministre finance fii fii mooy dëkkam ci jàpp ndalam ak état de Sénégal ci lañ ko amee ak talib yi ngeen jaar kon maire yi nan àndandoo ak Aline Sall ñu def raccord wax président de république mu teggi waa Aquatec ci kaw askan ñu ñun àll yi sonn nan lool musiba moo Aquatec musiba la ci ñun. askan wi yeewoo ci fukki dëkk ak juróom yi nekk fii ci ba Ndiaye tabb nañu ak kuréel jiital ci nag chef de village yi ñoom sax nee nañ daañu daje ak sous préfet bu Meewaan ak préfet bu Tiawan ngir ñu mën a taxaw ci mbir mi indi ci saafara. waykat bii di Kumba Gawlo Seck jël na dogalu bàyyi way ba jëmmi jamono la tax moo di ay jafe-jafe yoo xam ne am na ko ci baat bi ñu ko doon faj paj ma nag moo laaj mu toogub diir ngir bañ a way mu di information yoo xam ne ñi ngi ko jëlee ci vidéo boo xam ne nee nañu ab manager am moo ko jébbal waa APS di agence presse Sénégal fala leerale yooye am na it yeneen ponk yoo xamante ne ji dolli na ko ci xibaar jëm li tax muy teggee tànk ci wàllu way ba jëmi jamono nee na nag dana wéyal ay activité yëngu-yëngoom ci mbiri social ak yooyu ngir bañ a sori ay fansam naka noonu it yeneen yoo xam ne daal dana ko def ngir fans yi euh, mën a xam ne kon moom Coumba Gawlo Seck mi ngi fii am ak football U17 ci wàllu zone A bu UFOA Sénégal suba ci àjjuma ji kon lay dugg ci yëf yi derby mu di match war a dox diggam ak Gambie match la boo xamante ne ji ci gis-gisu seen entraîneur di Abo Talib ki ci gën a xeeñ rek mooy gàddu ndam li ñu ànd ak euh, Cheikh Sadibou Diarra ciy leeral. di jongante ak Gambie ci ndorteelu tournoi zone A bi ñu jagleel ñi seen at yees fukk juróom-ñaar ca Thiès. Sénégal amul jot yox-yox yi ndax adversaire bi ñu war a cëral ci derbi bu ñu war a gagné. match boo xam ni foog ñu dugg ci ak euh, ak li ñu naan agressivité positive euh, xeex ci bal yëpp bañ a bàyyi dara bañ a xeeb équipe bi euh, parce que Gambie équipe la boo xam ni dañu dañu dañu am petite catégorie bu baax mooy U17 u donc c'est important que ñu jël match bi à bras le corps bañ bàyyi aucun détail mais ku mel ni entraîneur comme Malick Daaf ak nu ma ko xamee moom am na xarañte boobu ba xam ni du bàyyi benn détail pour que équipe bi tegu ci ci ci yoon. gaynde yi ndaw yi amal wàccaay bu baax ñu jàpp ni war nañ amal taxawaay bu rafet ci tournoi bi. mais yaakaar naa ni staff bi liggéey nañu liggéey boo xam ne macha allah euh, ba pare am nañ expérience bi joué nañu ay match amicaux ak ay équipe yu yu xarañ muy Maroc ak Algérie. ñaari nation yooyu yëpp am nañ ci bu nekk ñaari match am ci ñeent ndam donc loolu c'est considérable mais lépp solo mooy match amicaux aussi ak compétition bokkul ak expérience bu staff bi am yooyu yëpp je pense que dinañ ko gérer incha allah. seen qualification ci CAN U17 bi war a am ca weeru mars bii ca Maroc mu ngi jaar ci ñu dem final tournoi UFOA zone A bi. ba tax na ñu yaakaar ne dinañ amal ndorteel ak ndam seen diggante bi aljuma bi bu ñaari waxtu jotee ci bëccëg. foofee mbokk yi fa la ñu yem ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20 lay xibaar di dellu siwaat ci télé bi ci nasaraan lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf yàlla ñu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm.